fii ci tubaa Touba Darou Khoudoss a jàppante moo dox ci diggante ñaari mbooloo wala ma ne ñaari daayira ki nga xam ne nag ñi nga xam ne nag ñoo jàppante ki ñu jox xabaar bi laata ñu agsi ci lieu bi lim ñu waxoon mooy waa xibaa yi ak waa ñi nga xam ne ñoo di waa wilaya ñoo jàppante waaye bi ñu ñëw daal exactement li ñu jot ci ay xabaar yi gën a wóor mooy du waa wilaya ak waa xibaa yi waaye nag waa la ak beneen mbooloo moo xam ne daal ñoo ngi fii wax nañu sax ne ñoom daal ci ñenn ñi ci mbooloo lañu moo xam ne ci benn seex bu sant kan ci la ñu ah, wékku moom mi xam ne moo ñu jox xabaar bi laaj nañ ko nag lan mooy andi jàppante bi ci seen diggante mu ne ñu daal moom xamul exactement lu ko waral ndax wax yi dafa wuute ñii nañu ab dal moo leen boole maanaam dal ci mooy indi coow am na itam ñene ci wàllu waañ la bi am na ba pëlis sax boobam na moom mi nga xam ne jox nañu xabaar bi tam ndax itam actuellement ñu ngi ci lieu bi waaye jàppante bi bi muy ko ci kaw xëy na xam ne ñoo doon jàppante waaye itam yeneen ngànnaay tamit na génn na fi li nga xam ne nag moo andi mbir mi ba léegi daal xamaguñ exactement lan la waaye daal li am mooy ñoom ñaar daal jot nañoo jàppante waaye nag police ñoo dox seen diggante jamono ji may wax ak yéen maa ngi mu jëb jëbe fa fi ne nag na ndax ñenn ñi ñi nga taxaw fee ñenn ñaa nga taxaw fale waaye daal nee ñu li leen andi daal li leen boole daal ah, ay mbir la yoo xam ne daal ak réeroo daal nag amandina waaye nag xamuñu exactement nag lan moo daal nekk ah, ñaar ñii di ah, booloo maanaam jàppante kan ak kan waaye daal li gën a siiw mooy li ñu wax mooy waa wilaya la ak beneen mbooloo moo xam ne daal nee ñu kii ah, seex boo xam ne kan la sant ci la ñu bokk ah, moom mi nag seex boobu sant kan nee dañoo bokk ci njabootu Serigne Moustapha loolu daal si Moustapha moom seex daal ci diggante ñaari mbooloo yooyu xëy na nag gaañu moom bëriwu bëriwu fekkante am ji mbooloo maa ngi taxaw ci buntu kër yi police mi ngi taxaw mu jëm jëba mi ngi taxaw kenn ku nekk daal di observé sa morom waaye daal déggun fi daal lan loo xam daal luy musiba waaye daal ak jàppante bi nag fi mu amee comme nooy ni ma leen ko waxee fii ci Touba Darou Khoudoss la boo dépassé station station Darou Khoudoss bi mel na ku jëm gaasu Daaru fi nga xam ne fi la sareet yi euh, euh, gaasu Daaru ji taxaw foofu daal fi la jàppante yi amee ci kër googu nekk foofu exactement nag li leen boole xamaguñu ko ndax version version yi daf cee wuute waaye itam euh, ñaar ñi nga xam ne ñooy mbooloo mi ñaari mbooloo yi nga xam ne itam ñooy jàppante xamuñu ñaari mbooloo yan la exactement ndax itam foofu version yi daf cee wuute waaye daal am daal mooy jàppante bi moom lu am la yàlla def na sutura nag mujj na ki jàmm ba fi ne daal ak dalandi amani na donte nag police ngi taxaw ak lenn ci ñi nga xam ne si daal ñooy sàmm kaaraange gi fii